nekk fii ci banlieue dañoo am tiitaange sëñ bi nag li mu tiit mooy vendredi bu jaxasoo. bañ a xëy bon daan bañ a xëy lu tax duñ xëy ñu dëkk ci dëkk bi danañ xëy waaye danañ xëy ak ak ak ak xinimini xinimini rek waxu waxu golo la mooy xew mu jaxasoo xinimini nañ ñu dimbali ngir yàlla. naataangom di ci àddu. bu fekkee nit indi nañ jàmm na kenn du yàqal kenn loolu mooy problème bu indiwul jàmm moom mën naa am. dëkk yi nag ñu ngi soucié ci jàmmi réew mi ñoom nag nee nañu ak li munta xew ci verdict bi CEDEAO ak Cour suprême di jox ci mbiru Ousmane Sonko nañu xalaat li nga xamante ne moo di jàmmi réew mi te quelle que soit la réaction te il euh, faut que Sénégal yi am une réaction négative xam la dem di xuloo di xeer di toj ñi nga xam ñooy tooñ nag dañ leen a yónni. commerçant yu nekk fii ci banlieue ñoom nag jël nañ seeni matukaay yëpp ñu bari ci ñoom dañoo préféré toog seen kër ñu bañ a xëy ci vendredi bi.